waaw ñu ngi Médina Fall fii euh, taw bu métti wàcc ci Thiès fii nag ci quartier Médina Fall nekk ci commune bu Thiès Nord gis nag mbedd yi fees tel ak ndox noonee la xale yi duggee euh, fi nga xam ne nag moom mooy euh, ndox yooyee di ci fo mu nekk nag loo xam ne nit ñi waris dañ ko bàyyi xel lool. moytandiku li nga xam ne mooy ndoxub taw bile ndax dafay faral di indi ay lajjëm nag ci wàllu jàngaro ndax gis nañu ne ndox mi fu nekk lay jaar ba tax na nag wares nañ ko bàyyi xel ah, fii nag ci ah, quartier Médina Fane Fall ci wetu Angalmor Jaxeer gis ngeen à perte de vue ngeen di gis ndox mi nu mu occupé fi nga xam ne moom mooy mbedd mi liy firndel ne la jëm nag ci wàllu bëtëm bi ak dikk bi dina gàllankoor lool euh, ngir ñëw fii ci medina fall waaye it dina nek loo xam itam euh, dugg ci medina fall du yomb mukk mu nekk nag it na ci jafe-jafe yi nga askanu medina fall ñu ngi koy euh, jànkonteel sa nawet bu jotee ginnaaw bu ñu medina fall dem ci centre de ville bu thiès doon def rek la nga xam ne mooy prospection nga gis ngeen ne euh, du Médina Fall rek moom moo am ndox Thiès daal euh, fees na dell ak ndox nañ ko doon xamee euh, ci ay jamono loole nag moo dellu siwaat ci bésu samedi bi ñu jàpp ne nag ñu bëri jamono yi dinañ am jafe-jafe lool ca la nga xam ne moom mooy seen dëkkuwaay rawatina kër yi nga xam ne dañoo daan inondé fii nag diggante police central bu Thiès ak euh, Sénélec bu nga xam ne euh, mooy euh, nekk ci wet ga fii nag nii la mel gaa yaa ngi noonu di traversé la nga xam ne daaj Dakar daj nañ ko donte ne foofee la gën a métti waaye nag fii ci Thiès mbir bi daal métti na ci lool mu nekk nag loo xam ne jamono yi ñu ngi koy nemmeeku gis nga gaa yaa ngi noonu yor seen téléphone di immortaliser Euh, wane nag seen bopp ci anam yi nga xam ne moom la ñuy xuusee kenn nag dañ ko boot mu nekk nag loo xam ne lu doy waar la en tout cas daal li ñu mën a jàpp fii ci cees mooy ne ginnaaw bu taw bi wàccee euh, fi nga xam ne mooy benn dëkk ñaari gaal ci bésub samedi bi cees nag fees na del ak ndox la nga xam ne moom lañ ko xamee woon la jëm nag ci wàllub inondation ñu nemmeekuwaat ko ci bésub samedi gile